jërë ngeen jëf bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na ak bay Djily mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb ñu ngi lay bégewaat bu baax ci jàngat làmb di leen kontaane bu baax fu waay mën na ne ci réew mi ak bitim réew gis nañ safoo bi nga xamante ni safoo ngeen ko wasaare làmb waaye mënuñoo dem sans yéen waaye yéen tamit mënoo leen dem sans wasaare làmb ndax lépp lu neex ci xeetu làmb wasaare làmb boo leen koy dégteel ma leen ciy jaajëfal bu baax mbokk yi diggante samedi ak dimanche dafa anamoon ay journée yoo xam ne journée làmb la nekkoon journée bu neex ginnaaw loolu dañuy njëkkee ci journée bi nga xamante ne Faata production moo ko organisé woon fële ca terrain gaal mu nekkoon lutte traditionnelle mise bi nekkoon trois millions ndaanaan yu bari jot nañ faa teew ci làmb ndaanaan yu bari wane nañ seen bopp ci làmb waaye nag final bi mu ngi doxoon ci diggante ordinateur ak Boy Faye mbokki dañuy dem wan leen combat yi nga xamante ni mooy combat préliminaire yi wala boog combat ñaari grand combat yi petit Euh, léger lourd ak raw gàdd bi su ko defee ñu ñëw ci grand combat bi dellu siwaat ci plateau bi ay ca dem Góor jël na leese ba dee leen abonné mooy Modou Faye Ordinateur ñoom ñaar ginnaaw jóge nañ terrain gaal gi dañuy dugg Adrien Senghor li traditionnel ba fa amoon mbokk yi gis ngeen li nga xamante ne jot na faa xew ci ambiance dañuy dugg ci combat yi wan leen li nga xamante ne jot na faa xew dellu ci final bi nga xamante ne Doudou moo ko dem su ko defee ñu dellu waat ci plateau bi ay ci ñu def Ndiaye Faye man Boy Faye jàmm moo ma jàmm moo ma soxal ma koy dox ci làmb mais dama la bëgg a wax ni ñoom ñi di fi teew ñëpp ku ma ci gën a dëng amul ku ma ci gën a ñeme amul Fatick laa juddoo ginnaaw raay laa yoroo dawal naa saret lu waay di dund dund naa ko làmb gi sunu kanam nag am na loo xam ne violence la du ma ko def ci làmb mais bu doon lu ma def ma fayu barki Muhammad Rasulullah benn làmb du yegg benn làmb du yegg mais làmb moo ma ñor amateur yaa ngi fi bëgg ma yàq làmb man du ma yàq làmb barke alxuraan booy fay yàq lamb doo ko dégg mais kii suñ ko dama leen di wax tey bés mi ngi ci bési barke Mouhamad beneen problème dina judd wax naa leen ko nag mi ngi def ay mi ngi def ay mi ngi def ay nit ñaa koy bàyyi mais nañ dem rek. waaw ba tey muy muy lekk loo xamante ni làmb ju neex la waaye dañuy ñëwaat ba tey ci Doudou Sané Doudou Sané samedi Doudou Sané dimanche règlement yi ak texte yi. saa su ne mbër yi dañ ci war di bàyyi xel waaye arbitre yi tamit ñu ciy gën di bàyyi xel ndax gis nañ samedi bi problème bi amoon ci diggante Doudou Sané ak Diassi euh, Peul dañu dañu disqualifié Doudou Sané téye licence dem na pour jël ko ba sonn ñu téye ko xamu ci ban moment lañ ko ko jox ba dimanche bi mu ñëw ngeen buwaat fas yéene tooyal xaftaanam bëre gis ngeen li xew ci diggante ak booy Faye ñoom ñaar jàmmaarloo nañ fa te yaakaar naa ne coup bu xësee jóg ñaari mbër bu ñuy bëre bu ku jóg ci ci li la dañ lay avertir te buñ la avertir dañ lay disqualifier comme li xew samedi bi bi mu mbëkkee jaasi pël dañ ko disqualifier yaakaar naa Doudou Sané bu dóoraatee booy Faye dañ ko war a disqualifier jox ki nga xamante ni mooy booy Faye ndam ni waaye ba tey dóore ci làmb li traditionnel Doudou Sané vraiment du loo xamante ni ñu ngi koy seet ñu ngi ko daan gis ci yow xamuñu nag lan moo xew ndax des fois da ngay bëree ak mer da ngay bëree ak xol bu tàng da ngay bëree te làmb ji fola yow ak booy fay yow ak Cheikh Tidiane Niang yow ak Diassé Peulh chaque jour dañuy dégg Doudou saane Diassé Peulh Doudou booy fay Faye saane Sané Cheikh Tidiane Niang Doudou te loolu yaakaar naa bokkul ci luy defar sa làmb luutal sa bopp ay noon rawatina di traditionnel bi nga xamante ne dañu laa sopp bëgg la di la safoo saa su ne staff Doudou Sané nañu waxtaan ak moom xam ni làmb folo waaye ku daanu rus te moom yaakaar naa ne ndaanaan la ci làmb yàgg naa ñëw ci compétition bu ne moom Doudou Sané di ko jël yàgg naa ñëw compétition bu nekk di ko ñàkk kon loolu nag benn parenthèse la woon rek boo xamante ni bëggoon nañ ko leeral mbokk amateuru làmb yi rawatina ñiy safoo lutte traditionnelle bi mbokk yi bu ñu jógee foofu ci Adrien Senghor dañuy barastiku rek buñ nee le 19 décembre xel day dem ci journée bu mag bi nga xamante ne Leewtoo production moo ko organisé mu dox ci diggante caapacoli bi ak saakande bu ñu nee caapacoli sa xel day dem ci doomu Pikine bi Boy Niang numéro de bu ñu nee saakande sa xel day dem ci euh, tafaatin doomi Bawol bi ñoom ñaan ñoo waroon bëre foofu ci euh, arène nationale dañuy dem biir arène nationale war leen lépp loo xamante ni ay jafe-jafe la lu presse bi di dund foofu lu metti ñu xamante ni mbokk yi dañ koy dund ñun presse en ligne bi surtout su ko defee ñu wan leen lépp loo xamante ni jot na fa xew dellu siwaat ay ca ñu dem. dañu ne tey dañu ne dañu tas bëgguñu sax di gêner mais c'est facile. mais da ngeen doon boycott ko. non mais parce que ñun ñun lii da da dul yoon boycott boobu dañ koy def parce que lii du yoon yaa ngi may dégg ak ñun boobu tamit ñu war a jox suñu gëdd parce que nan la bu jëgal ba jëgal leen. bàyyi baala dañoo am lu ñu métti barki démb bi ñuy woote réunion. man maa fi teewaloon presse bi man la Bour Gueweul yónni bi ñu ñëwee ci pavillon bu vert bi la ñu def cadre nañu fii ngeen war a taxaw wan ñu disposition yi ñuy jël nañu ku dul Boy Niang numéro 2 mënul traverser seen kanam image yooyu ñu ngi ko yor ba tey tey mënuñoo ñëw ba fii ñu wan ñu case boo xamante ne case bu ndaw la ñu sori géew bi ñu am appareil suñu appareil mënul zoomé wala mënuñu am yenn matuwaay yu mën a liggéey ñu indi ñu boo fii di ñu sacrifier wala ñu néewal ay xale lañ waaye ay am jom ay xale yu am fu ñuy taxaw lañ ay xale yoo xamante ne dañoo xam li ñuy bëgg bu dul woon ak làmb ak mbokki Sénégal yi ñuy seetaan du ñu tàllal benn góor loxo naan ko may ñu parce que ay doomi góor lañ mais boo ñëwee ci làmb di liggéey da ngay gis niñ lay tuutalee niñ lay doyedalee niñ lay toroxalee te dafa ñaaw ci góor am na loo xamante ne rafetul rafetul ñaaw na trop maa mbokk yi gis ngeen li nga xamante ne presse en ligne bi ñu ngi koy dund ci arène nationale presse en ligne bi ñu ngi koy dund ci biir ñi nga xamante ne ñooy homme de tenue yi nekk ci làmb vraiment li ma waxoon démb ak bërki démb loolu laay fas yéene di wax ñun nag ay nit la ñoo xamante ne ay borom jom lañ ay borom fulla lañ ay borom fayda lañ mbër mi ni muy takkee ngémbam ñëw arène nationale di liggéey sécurité bi takk li nga xamante ne mooy tëneem ñëw arène nationale di liggéey CNG bi nekk biir arène nationale di liggéey ñoom ñëpp ñu jàppee ko liggéey presse en ligne bi noonu la ñuy ñëwee biir arène nationale di liggéey yaakaar naa liggéey kese moo ñu fa indi du leneen loo xamante ni indi nañu fa muy caaxaan wala xeetu yàqal promoteur bi wala dimbali ndax démb li xew ba président buur ne dañuy génn làmb ji dem ñibbi du loolu la ñu war a def yaakaar naa nag am na loo xamante ni ñun presse en ligne bi ñoo war a taxawaat ci taxawaay boobu munoo jël ay annonce ay bànn annonce jox ko ay site internet ku ci nekk nga ne ko jàllaleel ma ko ñu jàllalee la ko defal la sa làmb promotion ba promotion bi nga ci bëgg a am nga am ko ci bu ñu ñëwee ci làmb ja nga naan ñu fii ngeen di taxaw mënoo leen dépassé fii te bi ngeen di jox bànn annonce bi waxoo leen ñu lool ku ci nekk xam nga ni bànn annonce bi ngeen ñu jël di ñu ko jox ay publicité la publicité yooyu da ngeen war a dem commercial fay xaalis bu bari ngir ñu mën leen ko defal bu ñu leen ko defalee ci gratuite leen ñu dërëm li gën mooy dañ leen a liggéeyal da ngeen ñoo war a bàyyi ñu liggéey am na ci nag ñoo xamante ne ci CNG bi vraiment war nañ leen xoolaat ndax yaakaar naa boo nekkee ci kuréel boo xamante ni dafa ŋànk làmb problème am wala situation am ngay dégager say responsabilité wala ngay daw say responsabilité yow mënatuñ laa xàmmee ñuy félicité waat bu baax président may sa Ndiaye gis nañ taxawaay bu rafet bi nga xamante ne def nga ko gis nañ taxawaay bu rafet bi nga xamante ne am nga ko ci presse en ñuy wax rek am na ci ñoo xamante ne vraiment ay promoteur lañ doon àndal promoteur yooyu ñoo leen def li ñu doon di ànd ak promoteurs yi di leen monteel ay combat combat yooyu ñuy monteel promoteurs yi ñu dem ba promoteurs yi gisatuñ leen ñu dàq leen ñuy ànd ak ay xale yu ndaw ñu leen di liggéeyloo di leen jaaraloo de gos à droite boo ñëwee ci arène national fekk presque bi di liggéey nga naan leen jaar leen fi jaar leen fee bay jàmmaarloo ki nga xamante ne mooy buur géwal dafa ñaaw buur géwal moo ñu jiite am na loo xamante ne nag rafetul nañ leen xoolaat taxawaay bi waaye nag wax moom dëgg day tingom seede parce que bi may dem arène nationale man maa demoon samedi ñu wan ma ay vidéo ma jël vidéo yi filme fii ngeen war a taxaw fii ngeen war a taxaw fii ngeen war a taxaw yaakaar naa ñi ko doon wax ay kilifa lañ te image yaa ngi nii ci télé bi bu ñu demee na ba ñu changé foofu ci jours yi ñu changé ko ne ñu fii ngeen war a taxaw kon yéen a teggi seen i wax waaye ñun teggiwuñu seen i wax ñuy jéggaluwaat bu baax a baax a baax su ko defee ñu dem ci làmb ji rek làmb ju neexoon la mais liggéey bi compliqué woon na trop mbër yi nga xamante ne vraiment ñu ngi doon séentu wasaare làmb tagal leen seen combat ci combat préliminaire yi ba ci yeneen combat yi ñu perte yëpp ñu ngi leen koy jéggalu di leen wax situation boobu moo tax tey ñu perte làmb ji waaye dañuy dem ci tuusu Boy Niang dem ci tuusu Tapha Tine ñëw ci làmb ji mbokk yi su ko defee ñu dégtal leen làmb ji ay ca ñu dem tuusu Boy Niang gis ngeen tuusu Tapha ñoom ñaar ku ci nekk tuus na tuus bu la boole ci làmb ji tuus na tuus boo xamante ni ku ko xool mun ngaa jàpp ne ku ne mën naa jël ndam li yóbbu ki yóbbu ndam li pikin ki yóbbu ndam li Bawol waaye làmb a ngi noonu Tapha Tine vraiment gis nañ ko mu simmeeku wanewaat boppam gis nañ xale yi nga xamante ni bëre nañu ci su ko defee dañuy dem ci ñett combat yi nga xam ni jot nañ ko cee am combat bu njëkk bi di fils de mas max ak saa xombal numéro 2 su ko defee ñu dellu si ñu dellu ci komba bi nga xamante ni mooy tiijaan Faye ak Alioune Seye Junior ñëw ci grand komba bi ay ca ñu dem stade te dellu si arbitre bi ngi noonu di waaj a sifflé Adama de Max moom moo la wan ginnaaw ngémboo ngémb lu weex li saa xombal 2 <laughs> moom moom nga jàkkaar lool Adama nee na ma demal taxaw nee sori ma may ma ma dégg nga may dégg bàyyi jiiri ma ne ko Adama loolu dina neex mbokk yi ñuy jéggalu ci combat yi nga xam ne jot na fee daw yëpp te amuñu leen Fils de moo la woon ginnaaw ngemboo ngemb lu weex li saa xombal moom nga jàkkaarloo ndaysaan moom ma ngay leewaat moo moo tuuti Fils de Max moo ëpp volume tuuti mais Fils de Max aj na garde bi dox ci kawam ndànk ndaysaan bëgg naa xeex bëgg naa bëre saa xombal dóor na Fils de Max saa xombal deux ñoom ñaar saa xombal ngay déplacé ndaysaan dem na latéral ma ngay dem ma de Max saa xombal deux. Fils de Max mooy moo ngem moo ngem fadal bu Dakar bi. Fils de Max saa xombal numéro. xombal nga jàkkaarloo. Fils Max moo sol ngem lu weex ak Fils de Max ndaysaan. ñoom ñaar ngi noonu sama gaay Fils de Max cokkaas na ma ngay xeex door na door na ma ngay rokkas Fils de Max a ngay rokkas laay laa saa xombal fay na door na ko mu daanu door na ko mu daanu Fils de Max door na ko mu daanu Fils de Max door na saa xombal mu daanu Fils de Max door na ko mu daanu oh Fils de Max Fils de Max door na ko mu daanu Max Mbargane kottu na ko Max Mbargane kottu na ko Max Mbargane kottu na ko ndaysaan Maxime Mbargane kott na ko ànd na moom génn ee saa xombal wàccaat war a yéegaat ci kaw man su doon maay Alioune Sèye Junior ma digal ko dama naan ko indil ko jiita ngaas xeexal moom waaye bul ko nangu mu jàpp la bul nangu mu jàpp la benn yoon ndax Tidiane Faye Ousseyn cetu wee sax bu la ko jàppee day bëre ndax naanaan la ci bëre su ma déggee wax ji daal mooy woo ko woon may fu mu yàkkee nàkkam da ko woon doo gauche droite jaxase ko public bi stade baa ngi noonu ñoom ñaar ñoo ngay lewaatoo dóoranteeguñu jàppanteeguñu abit bi àtte booy ñaar ngi noonu am na mu ba mu sol daw wër stade bi abit bi siflewaat na Alioune Seye Junior Tidiane Faye Alioune Seye Junior moo ñu woon ñu jàkkaar lool dóoranteeguñu jàppanteeguñu ñoo ngay xoolante ci biir bët Tidiane Faye teg na tànk topp ko wala boog dox jëm ci moom Alioune Seye déplacé wu na ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar dafa mel ni ñoo ngi commencé jege anto Alioune Seye cokkaas na Alioune Seye Tidiane Faye Alioune Seye Tidiane Faye Tidiane na Alioune Seye Tidiane xeex nanu léegi Tidiane daa bëgg a diriger combat bi Ousseyn da koo bëgg a jeexal te Alioune Seye fu ko may loolu jëli na ko jëli na ko Alioune na erreur. da koy daan daan na daan na ko Alioune Seye def na erreur. est que jëli bi baaxul. parce que warul woon bëreeg nii Tidiane Faye. Alioune daa waroon xeex ak Tidiane jàpp ko bëreeg moom waaye gis nga jël bi mu ko jël daw jëli tànk Alioune Tidiane Faye moom bëre bi ba ñàkk combat bi Alioune Seye daal vraiment du lii doon xaar ci moom Ousseynou. est que xam nga benn affaire. waaw. bi Alioune Seye dangay jël tànk Tidiane Faye bi est ce que da koo dóor tànk. da koo dóor tànk wax naa la Ousseynou Tidiane Faye day bëre cetugee day bëre Tidiane Faye ndaanaan la ci bëre Alioune Seye daa daw jëli ko te jëli bi ñorut wax naa la Tidiane Faye ku ko mënul duma mënoo ko daan boo weddee laajal sos da koo dóor ay kur yu bari ba Tidiane Faye kaaw mu mun koo daan Tidiane Faye pour man bu ko Alioune bu goon daan daa waroon mën a moom daw xeexak moom Alioune Seye junior daa waroon xeex ak Tidiane Faye xeex indi ko giite ngaas bu met ba Tidiane Faye juum ci xeex nga bëreeg moom daan ko waaye vraiment tamit lamb ñaari ndamay dugg waaye benn ay Alioune Seye Junior n'a góor démérité na góorgóorluwaat ñëwaat ci làmb xam ne làmb am na fi cër am na ci wàll ñuy félicité bu baax Tidiane Faye wane na ni du mag ci làmb daa jiitu xale yi ci bëre waaye du mag ci làmb ginnaaw loolu nag am na dañuy dem ci kanam tuuti xool grand combat bi dox ci diggante booy ñaar càppa cëli ndoolu mooy combat bi dox ci diggante fis de Max ak Cheikh Sa Xombal Fils de Max du ko dóor ba xale bi daanu loolu nag ci làmb la bokk ñu ñëwaat ci beneen combat bu doxoon ci diggante Alioune Seye ak Tidiane fay Alioune Seye ni nga bëree démb ak Tidiane fay du loolu lañ doon xaar ci yow vraiment du loolu lañ doon séentu ci yow parce que booy bëreeg ndaanaan bu mel ni Tidiane fay ñu ne tuddee ko le professeur de Langsar nga xam ni yaram bi yépp day bëre loolu bu ko làmb ñépp nanguwee que ni Tidiane fay mooy la professeur de Langsar war ngaa xam ni bëre bi ak ndoxtu bëre bi ak mën a bëre gi ci moom moo tax ñu nommé ko loolu booy bëreeg ku mel ni Tidiane Faye mu am foor am faiblesse yaakaar naa ci faiblesse am nga waroon mën a jaar ba bëreeg moom daan ko da waroon xeex ak ki nga xamante ne mooy Tidiane fay ndax xeex bi moo nekkoon sa njariñ ci làmb ji boo xeexoon ak moom xeex bu metti indil ko gitangaas bu méttee méttee métti li nga bëggoon ci moom di nga ko mën a am waaye nag vraiment làmb moom bu erreur amul defet du am xëy na da ngaa juum ci bëre bi ni nga bëree wala ni nga demee jëli tànk Tidiane Faye ñorul Tidiane Faye séen la jàllale la ba wër la ndoom ma nga def 4 appuis làmb ngi noonu ñu lay encouragé bu baax Alioune di félicité Tidiane fay di ko wax ni félicitation wane nga ni ba tey xale yi da nga leen jiitu ci làmb njëkk leen a bëre mais doo mag wane nga ni mën ngaa bëreek ay ndaanaan te sima biir wax wax naa ko Tidiane fay moo bëreek Zos Tidiane Faye moo bëreek Paul Maurice Paul Maurice moo bëreek Modou Lo loolu palmarès bu rafet la vraiment ak yeneen ndaanaan yoo xamante ni bëre nga ak ñoom ci làmb daan leen kon tey ñi nga xamante ne ñu ngi ci ñu ngi waat ci làmb war a mën a taxawaat Tidiane fay nañ xam ne la professeur ñëw na ñu waaj te xam ne ñoom ñëpp fas yéene na ak laaleeg ñoom dañuy ñëw ci débat déeb yi nga xamante ni yàgg na loolu ci diggante Tapha ak Boy Niang ci digg géew bi temps bi yàgg na mbër yee ngi woon ci seeni débat ñu ñëw ci débat déeb yi su ko defee ñu dellu siwaat ci li nga xamante ni mooy grand combat bi ay ci ñu dem waa xewaat na dëpp ndeysaan joxe na ko ci ginnaaw moom la Géant di Baol. 9h jotee ñuy laal 20h ba 22h làmb ji jeex moo tax lu ci di def na ko xam lu ci waay di def na nga ko xalaat teg ndaysaan ma ngay sotteeku moom it ndaysaan moom dafa. Boy Niang malikaan ba ma ngay sotteeku moom moom Tapha Tine ndeysaan gis nga ko malikaan la wër moom Tapha Tine na ci xibla waa gis nga ñoom ñaari mbëri ku ci nekk def na li nga xamante ni mooy seen i débat déb ñuy xam ni rek loolu dafa bokk ci làmb xar fa xuufa ndax mbëri yaakaar naa bu ñu jotee avance li ñuy njëkk a def mooy dem seeti ki nga xamante ne mooy ñaankat gi mu ñaanal leen ci làmb ji jox leen butéel ñu ñëw loolu daa bokk ci liy dalal xelu mbër bi waaye gis ngeen ñaari mbër yi bu ñu simmeekoo ñoom ñaar ku ci nekk indi na ci état de forme boo xamante ni vraiment wane nga ni combat bi daj nga ci coono dañuy dem ci combat bi arbitre bi woo na ñaari mbëri ñu ngi ci diggu géew bi mbokk yi ñu dem jàngat làmb ji seetaan ko ak mbokk internet yi su ko defee ñu dellu si waat plateau bi ay ci ñu dem laaj na Tapha Tine arbitre bi sifflé moo leen wan ginnaaw Ousseyn arbitre bi sifflé na teewal wéyal ñoom ñaar ndeysaan Boy Niang teg na Tapha Tine teg pied gauche Boy Niang cokkaas na léegi waaye Tapha Tine a ngi di ko déglu Tapha Tine wàcc na ba tolloog Boy Niang. am Tapha Tine daa mel ni jàppante bi la gën a bëgg. ndaysaan arrière na. woowaat na ko. nee na ko kaay. Tapha Tine ndax na ko ba mu génn na ko kaay waa daj ci loolu lamb la mbër yàgg na koo wax mbër. Tapha Tine Boy Niang. ñu ngi noonu di lewaatoo ñoom ñaar Boy Niang daa mel ni ku bëgg a dem. daa bëgg a dem Tapha Tine su doon maay moom damay sàmm tànk bi. waaye Boy Niang bu demee lan la fay fekk. Boy Niang ci tànk ba la jëm. ku demee lan la fay fekk. ah en tout ñaar ñaar xale la xamante ne Ousseyn ku ne mën naa loxoom bi du ma ko teel. Ousseyn lu Tapha Tine di def nii. loxo boobu mën naa déranger Boy Niang. stratégie la lu Tapha Tine di def nii. ñam na ci Balla Gaye de. moo tax mu def ko tey. Eh. ñam na ko xam na ko bi daa tëju. Ouzin loxo boobu daa am lu muy sonal ci mbër. loxo boobu le fait que mbër bi mu ngi koy gis du mën a xam lan nga nar. booy ñëw du la séen booy dal ci kawam du la séen boo koy du la séen. moo tax en tout cas daal loo ci mën a dégg mooy Tapha Tine ni mu entamé combat bi baax na. booy ñaa eh, door na ko booy ñaa door na. ndaysaan door na Tapha Tine moytu. coup bi dalagul. Tapha Tine booy ñaa. salaw ñoom ñaar. supporter yaa ngi ne selaw ñoom ñaar Tapha Tine Boy Niang kenn déggatul kenn Ousseyn supporter yéen ñu doon wax Boy Niang. Boy Niang door na ko góos bu dal boobu dal na. Boy Niang door na Tapha Tine a xeex ak Tapha. Tapha Tine na na. Ndeysaan na. mooy jërëjëf rajul eh, jàpp daw na génn. génn nañ sax Boy Niang kuuba la daw. moytu na ko sa baa xañ. Boy Niang actuellement Tapha Tine daa bëgg a jàppante ak moom kor ko dóor uppercut Boy Niang am na lecture jàng na loolu moog estafam xam na ni ku Tapha benn boo ci encaissé mën na la jeexal laa bëgg. Boy Niang nee naa la ni muy xeexee baaxul. déedéet Ousseyn bu Boy Niang ni muy xeexee baaxul. bàyyi ñu ne yow Ousseyn. ah ayca nañu ay coups yu dal. nañu yónni yàgg. vraiment dina dal waaye Tapha fi mu dol nii. coup bu Boy Niang dóor day dugg war naa taxawaat. Boy Niang Tapha Tine troisième avertissement lay jël moom Boy Niang na caxabal na ko bu bañ dóor na ko tànk. ah Boy Niang li mu def. Boy Niang ngay bëree Tapha boobu mën naa jeexal lamb ji. may dul. ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk ma ngay bëre bëre tànk booy ñaa wicc na ko fàqan na ko xar diis booy ñaa daf koo bëgg a bëreloo waaye tafaatin dafa diis kaw booy ñaa fàqatan na booy ñaa fàq na tafaatin a ngay a ngay dóor tafaatin booy ñaa ma ngay dóor booy ñaa waaye tafaatin est-ce que la mu def wóor ci wóoru ci kawam te jàppul ndeysaan booy ñaa day bëre waaw ma ngay bëre su doon maay tafaatin damay moytu bu mu nangoo xaar bëre booy ñaa pour booy ñaa def erreur mu daan. bu defee loolu da koy may confiance maay dinaa def moom it ni xale bi di defee waaye en tout cas lu mën a xaw mooy ñoom ñaar seen tumeñ ñi fas yéene nañoo bëre ndax combat ba ma ngay bëgg a diire ndeysaan combat ba ngay bëgg a diire. booy ñaa tafaatin. mbokk ñu fàttali leen booy ñaa am na trois avertissement Tapha Tine amagul dara. Boy Niang daa jàpp di déglu. ndeysaan ñu ngi noonu. combat bi du yomb. Tapha Tine Boy Niang. ndeysaan combat bi mënul yomb. ñoom ñaar ku ci nekk daa ànd ak ay ku ci nekk daa seeni mbokk. waajal combat bi. muy Tapha Tine muy Boy Niang. ndeysaan ñu ngi noonu ba tey. boo Niang du ko ndengeñ ba pare di ko déglu Tapha Tine mi doon ay bopp fa yàq yeggul ndax day bañ kuwee ñëw da koo jàpp ndengeñ jël bopp ba teg ci épaule Tapha door na léegi Tapha Tine a ngi sew ci suuf waaye Boy Niang jàpp na takk na déglu dafa bëgg a caxabal wala da koo bëgg a teq wala da koo a moom Boy Niang Tapha Tine jàpp na wéeru taxaw di ko déglu làmb ja ñëpp a ngi ne tekk Baye Djily ñëpp a ne tekk Ouzin boo xoolee boo ñaa li mu bëgg mooy Tapha Tine di dóor ci suuf mu jéem a forcer ba bëreeg moom daan ko moom Tapha Tine looloo ko arrangé ci combat waaye en tout cas li mën a xew mooy ñoom ñaar Tapha Tine téye na ci loxo bi téye na ci loxo càmmoñ bu booy ñaa bi day bàyyi rek dóor day téewaat day bàyyi waat rek dóor waaw waaw ñaa fàqat na ko jege nañ saako Boy Niang li muy def nii risque la. Boy Niang parce que kii di Tapha Tine dafa diis. risque yi muy jël bés bu tombee ci piège Tapha dina am lu ko bett lool moom Boy Niang. ndeysaan Ousseyn làmb loolu loo gis risque la ndax Tapha Tine fi mu toll nii moom Boy Niang bu taxawee téye boppam waxuma la Boy Niang mais ku dul Boy Niang dina daan Tapha Tine lii rek nga mën a def ba rek moom mu def erreur nga daan ko dem ñibbi waaye boo defut loolu Tapha Tine neexut a yëngal. Boy tekki na la pataaka ba sànni tekki na sangoor ba. booy ñaan booy ñaan génn na dellu si waat ba génn saako yi. Mm-hmm. booy ñaan fi mu toll su génnee am quatrième avertissement tey kon benn na bugul génn. Euh, booy ñaan sonn na booy ñaan sonn na am na quatre avertissement. booy ñaan dafa sonn. lamb ji da baaxul. nii lay jeexee. bi nga xam ne fii la dëkk mooy biir Pikine mais est-ce que du bokk ci li koy yàqal ndax xool nañu bi mu dugg see cour des diggante moog Lac de Guiers 2 nii la demee woon mu ñëwaat moog Tapha mun naa demal Tapha Tine door na ko tànk léegi pàdd na ko waaye Boy Niang bougéwul est-ce que su demee waatee noonu amateur bi doo am lu ñu koy reposé Boy Niang Tapha Tine door na ko Tapha Tine Boy Niang Boy muy jël baaxul door na ko doraat na ko eh door na ko pàdd ko doomu daanu. lamb ja jeex jël na ndam li day jël cinquième avertissement moom jël na ndam waa jërëjëf mbokk yi gis ngeen làmb ji doxoon ci diggante tafaatin ak Boy Niang bëri nañ ci biir bëri bi ñu ci bari nag ci amateurs yi wala ci yenn ci ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci làmb ànduñu ci bëre bi Boy Niang ak tafaatin ndax jàpp nañ ni booy ñaar dafa bëre ak tafaatin ci ci da koo ragal xëy na nag gis-gis yi ñoo ñoo tax marché ku nekk di jaay man nag bokkuma ak ñoom gis-gis ndax yaakaar naa booy Niang buy bëreek luur bu mel ni tafaatin Tine mat cent et quelques kilos cent trente waa cent trente cinq ba cent quarante kilos booy ñaar li mu wàññi ci poids boo doon natt ci ay poids mën na mën a bëree ay cent vingt kilos wala cent vingt cinq kilos ci diggante ma tafaatin différence boobu bu amee poids lourd ak poids léger bu ngeen di bëre soo bëggee wureek moom ci moom ci bëre bi bëre bi neex faw nga koy jam di déplacé wu di dem gauche à droite booy ñaam loolu la bëggoon bëre pour tafaatin def erreur ci erreur boobu mu rectifier ko daan ko dem ñibbi waaye loolu mënul nekk ndax gis nañ beneen tafaatin bu màgg ci xam-xam bu màgg ci bëre bu màgg ci concentration bu màgg ci sérieux ci boppam ndax tafaatin bi mu dugg see ci làmb ji ak heure bi mu dugg si wane na ni làmb ji da koo jaral tafaatin bi mu dugg see ci làmb ji sarax si jàppale bi muy wane ne bi am na fu mu ko teg ndax mun naa dugg pikin ñàkk ci diggante mag Ama Baldé bëgg a duggaat pikin ñàkk ci diggante mag Boy ñaar du ko nangu te ñaar ñëpp ay xale lañ moo waral mu bëre bëre boobu concentré wu ci kaw Boy Niang tàllal loxo bi di dox ci kawam ndànk ndànk ndànk ndànk. bu Boy Niang dóoree mu mu continuer remise ko ñu génn saaku yi Boy Niang jël cinq avertissement te réglement bi daf ne boo amee cinq avertissement dañ lay disqualifier arbitre bi jox ki nga xamante ni mooy Tapha Tine victoire par décision arbitrale vraiment mu nekk loo xamante ni ñu bari ci amateur làmb yi wal mi gang lañu doon xaar bëre wuree ci bëre ba jël la am waaye nag fan yi làmb yi ci baree baree bare surprise mu ngi am boo xoolee Quench si double moteur noonu la demee boo xoolee Siteu Papa Sow noonu la demee boo xoolee tafaatin booy Boy noonu la demee te yeneen i làmb mu ngi ci suñu kanam kon vraiment mbokk yi ñu leen di jëfal bu baax di wax ni ñu ngi encouragé waat booy Niang bu baax a baax di félicité tafaatin di ko wax buntu làmbam gën naa ubbeeku Tapha Tine pourquoi pas mu jëli Lac de Guiers 2 Lac amul komba Tapha amul combat Lac daanoon na ko depuis 2008 wala 2009 ñoom ñaar la ñu bëre woon mu daan ko jot na mu may ko revanche ñoom ñaar ñu bërewaat ndax la de amul komba te Tapha Tine am na combat te ñeneen ñëpp am nañ combat pourquoi pas ñu bëre ñoom ñaar combat la boo xamante ne combat bu neex la amateur yi bëgg nañu ko ñuy mbokk ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen kontaane bu baax ci jàngat làmb ji di di leen jaajëfal fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew.